jigéen ju ëmb wala jigéen ju nàmpal may nañ ci mu dog ak ndax bu dogee war naa fay wala kafaara da bokk waaw dañuy xàjjale ci mësa bi la ñaari noonu dañuy wax ne bu dee jigéen ju toll ak diggante moom sañ naa dog léeg-léeg sax day war a dog maanaam bu ko leeree ne bu wooree doom ji loru wala moom mu loru wala tiis wu métti dal ci kawam daa war a dog su wéree fay buy fay nag fay rek ko war ndax loolu wéradi la bu fekkee nag xëy na àggut ci loru waaye nag metti na ci moom it sañ naa dog su amee jàmm fay bu dee nag kii nàmpal nga xam ne bu wooree doom ji du am sow ci ba mu sow mën naa loru bu mu daawar a dog xanaa mu am keneen ku ko mën a nàmpalal te mu am lu mu ko mën a fayee su ba day wut koo xam ne xëy na woor waru ko wala mën naa boole woor ak nàmpal mu di ko fay wala muy coobarew di ko nampalal doomam ngir mu woor bu loolu amut ngir doomam mën a dund sañ naa dokkooram waaye moom buy fay nag bis bu set day joxe waale mudd bis bu set dañuy xàjjale kii nàmpal ak ki ëmb ki ëmb moom dañuy jàpp ne ko wéré di la fay rek moo ko war joxe mudd waru ko waaye ki nàmpal moom buy fay day joxe waale mudd mu jëfandikoo piqûre yi nga xam ne day jëm ci sidit wala piqûre yi nga xam ne day jëm ci kaw yaram ak ndax am na lu leen wute ñoom ñaar ci xeet yi piqûre yooyu waaw piqûre day ci borom xam wax piqûre bi ñuy tuddee ibra mu gaziya boo xam ne day taxaw taxawaay lekk boobu lañuy ñuy tere ku woor mu jëfandikoo ko moom day yàq koor bu amee wéradi gu tax mu jëfandikoo ko it day jàpp ne daa am ngànt dog kooram boo légee mu fay amma pikir yi nga xam dañ koy def ci siddiit gi wala ñu def ko ci suux yi waaye nekkul mu xasiya taxaw taxaw taxawaayu dund lekk ak naan ay du tey nit ki bu ko defee day lekk day naan pikir boobu ñoom dañoo wax ni du yàqu ko ndax amul amul taxawaay boobu ay pikir bi nga xam ne suñ la ko joxee du soxla ngay lekk du soxla ngay naan loolu dafa taxaw taxawaay lekk kon jox nañ la nga lekk loolu mooy yàq ko loolu la ci waroon xam wax sëriñ Cheikh. kii moom day laaj ndax dagan na ci ku wóor mu may deret ak jël dara ci deretam ngir def ay loolu dañ koy yégal ci li ngay tuddee nàmputal dañuy wax ne nit ku néew doole nga xam ne bu nàmputaloo mën na caa miir miir mu yàq kooram kooko dañ koy sib ci moom ñu bëgg na bàyyi ba dog naka noonu jël deret moo xam da koy jël ngir di ko maye wala day def ay analyse moom itam euh, bu fekkee ne kattanam may na ko man daal mën nañ ko jël ci moom deret du ko yàqal dara

mu ne kooku lan mooy atteem ak lan moo war ci moom. kooku sëñ Cheikh day jàpp rek ne amee na borom ñetti koor yoo xam ne bu fekkee ne ñàkk fay ga sàggan mook ko teg bi bi barax lu ñëw mënoon naa fay waaye moo fayut bis bu leen di fay bis bu nekk dana ko boole joxe mu du ci am ñam ci ñam ndax dañ koy teg ay daan ngir sàggan bu fekkee nag ni ak wéradi la wala ngànt la woon moo tax mëntoon a fay maanaam baraxu jot na mënta fay ngir wér di wala ngir ngànt yeneen su boobaa nag day fay kese day fay rek waaye bu fekkee gàttañlu ak ñàkk a soxal ñàkk jox mbir mi yitte moo tax mu bañ a fay bori ba ramadaan ñëwaat su jàllee ba mu koy fay faw day boole fay ak lele joxe ñam waaye ramadaan mi moom kenn mënu cee woor weerin weer ramadaan rek la ñuy ji teew la ñuy woor maanaam mënta woor ramadaan ren di ci yéene gu jàll kon day woor ànd ak nit ñi koor gi teew bu koor gi jàllee nag mu fay yawee su te bu koy fay te sàggan waral ko bis bu set mu joxe waale mudd lu tolloog cinq cent vingt cinq gramme ci ceeb jërëjëf sëñ kii moom day laaj mu ne lan mooy àtte jëfandikoo pâte dentifrice wala tuufaay yi ñuy def ci nopp wala ci bët ak ndax bu fekkee ne ki woor da koo def yëg ci caf ci ak bëleem ndax dara war na ci wala déet waaw ci musab bi dañuy wax ne toqal dara ci nopp ak ci bët ak ci bakkan bu ko ni dafay mu àgg ci buleem day fay naka noonu dentifrice ñoom dañ koy yéegal ci socc bu tooy dañuy sib nit di woor di soccoo socc bu tooy ndax bu ci dara rek cee jàll bàgg ci buleem day day day yàq koram naka noonu pat dentifrice bi it bu fekkee ne am na lu ci rëcc ba àgg ci buleem day jàpp ne bis mu war na ko fay lu tee dana jàpp waaye day fay bis kon li gën ci yu mel noonu ay identification yooyu nit ki su jëfandikoo ba noppi rek mu def ko maanaam bu xëddee ba noppi mën naa raxas ay bëñam ba mu set te fekk jàpp jotagut bu baax loolu du ko gaar bu dogee ba noppi du ko def waaye yaakaar naa du soxla ci digg bëccëg bi ndax moom ngir dindi aw ñam buy des ci ginnaaw boo lekkee moo ko tax a jóg daanaka kon nit ki mën na koo def ci waxtu woo xam ne terewuñ ko waaye jëfandikoo ci bëccëgu Ramadan moom dañ koy sib ndax dafa wóorul waaye nag bu yàlla dogaloon mu jëfandikoo ko te dara jàllut boobaa yëpp koor ko baax na waaye bu dara jàllee yéen day yàq ko naka noonu toqal yooyu ñoox yëpp bu la leeree ne dara jarut àggu ci booli gi koor ko baax na waaye bu àggee ci booli ba nga yëg ko moo xam ci bët la jaar wala ci bakkan wala ci nopp bis booba da koy fay te du tee da nga jàpp la des ci bis ba. jërëjëf kii moom lay laaj mu ne ndax guddi ab bëñ wala seetal ab bëñ bokk ci yàq waaw ci mazhab bii dañuy wax ne dañuy sib faj bañ bu wéradi ci bëccëgu ramadan dañ koo sib ndax moom itam dara mën naa jóge ca la koy faj jàll waaye dañuy wax ne bu dara jàllut nag koor ga yàqu waaye lu jafe la di faj bëñ ci bëccëgu ramadan ba noppi dara jàllut saa bu dara jàllee rek fay daay day war moo tax dañuy wax ne yu mel noonu ci gën bu ko nit ki mënee def na ko def guddi bu dogee allahumma docteur buy faj di amut te tant metti metti di metti de ba mënu ko muñ suba ngant la nga dem faju ji bu yàlla dogalee am lu jàll mu xam ne dog dog la ngàntal day fay bu dara jàllu tit mu xam ne koor gu baax waaw xam nga nit bu tàggoo sagoom dañ koy yéegal ci xam bu fekkee ne diir bi yàggul te fajar bokku ca bu yàq koor maanaam waxtu yi nga xam ne ci la war a jàpp yéene bu fekkee waxtoo mi nga ànd ak sagoom waaye ci bëccëg bi nag lañ ko def ay waxtu mu dañ su boobaa koor gu baax na am maanaam bu fekkoon tey dañ koo def li ëpp ci bis bi wala mu yóbbaale dara ci fajar waxtu yi nga xam ne ci lañu war a jàpp waxtu woowu bi ñu jàpp di jot fekk na mu tàggaw sagoom kooko day fay bis boobu ndax kooram bis bu baaxul kon yu mel noonu it di moytu di ko def ci bëccëgu Ramadan mooy li gën allahuma mu xam ne lu yàgg mu dellu siwaat te e, jamono yi mu koy def moom fekk na jàpp weesu ba nga xam ne fas na yéene kooram mën a ko kii moom day laaj mu ne su fekkee ne dafa am ëmb boo xam ne dafa toll ci ñetti weer yàlla dugal mu faatu wala daal matagul daal mu faatu ndax buñ ko dee denc dañ koy denc comme liir bu juddu mat sëkk wala nuñ koy def waaw ci mazhab bi de li wax mooy seqatu mooy lu te matul ñoom dañuy wax ne kenn du ko sang kenn du ko sang dee su ko jullee danañ raxas deret ja laxas ko ci ab morsa rek denc waaw kooku ñoom jàppee guñ ko nit loolu mooy mazhab Imam Malik képp ku juddu te matul noonu lañ koy jàpp. kii moom la ne lan mooy àtte koo xam ne dafa wax soxnaan na ko boo génnee ci kër gi yàgg say bagage loolu mooy sam passé. waaw moom lan la wax soxnaam na ko déglu bis bu génnee bagage yooyu soxna tas sëy tas na saa bu nit waxee loolu soxnaam moom ak da ko aj ci mbir mbir mu ko aj nag saa yu amee rek sëy bi tas kon soxna su bëggee tas na jël ay bagages am génn saa bu génnee kër gi sëy ba tas. kii dafa laaj ne ndax kabar yi ñuy def ci ñaari rakk yi mujj ci julli bi doon ñeenti rakkaat dañ leen di yàllu ni ñuy yàllu li ñuy jàng walla déet. jëmmi kabar kabar ci julli kabar yëpp yëpp dañoo bëgg ñu di ko yàllu ilimaan lañ bëgg muy bëral ay kabaram. bu dee maam moom wala kenn kuy julli ñaar lañ bëgg ñu bëral kabaru armal ak salmal yooyu lañ bëgg ñu bëral ko waaye ci des yépp dañoo bëgg aji julli ji yelu ko xanaa ab jottalikat bu fekkee ilimaanam kàddam xubut am kuy jottali moom mën naa yëkkati kàddoom ginnaaw ilimaan waaye ñi ci des ñëpp allahu akbar sami allah liman rabbana wala kalam yëpp dañoo bëgg ñu di ko yelu ilimaan lañ bëgg muy wax ca kaw ak bu jottalikat amee nekk aajo kàbbaru armal ak sëlmal na moom ñëpp lañ bëgg ñoo ko ci kaw. jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne commerçant boo xam ne nee na moom bu dee génne azaka da koy xayma ci njëggam jënde woon léeg-léeg mën naa am marchandise mu yokk waaye nee na buy xayma njëggam jënd wu rek lay xayma muy laaj ba xam ndax loolu dana baax wala déet ak su fekkee ne baaxul at yi mu si jotee génne azaka ci anam googu lan mooy àtteeg loolu mu def ko. xam nga ci asaka bu day yahantu dañuy wax ne capital bi ak bénéfice bi yépp la asaka war ki amone benn capital liggéey ci at bi at mi waaj jeex alal bari juddu si ca nga xam bénéfice bi bari lol, ma tëggul at sax asaka da ci war bu asaka waree ci capital bi moo tax dañuy wax ne borom xooxee bu nit di xayma am njaay njëg gim koy jaayee lay xayma njëg gim koy jaayee la war xayma ndax bu ko jaayee njëg gi mu ko jënde woon fekk mu yokk mën na koo xayma ndax junni la ko jënde woon waaye mi ngi koy jaayee junne ñett téeméer mu xayma ko léegi junni génn asaka ji ci ngoon gi mu jaay ko nit ñetti téeméer yooyu mu jaay asaka génn ji te war na ca génn bi ci des it loolu mu wax noonu li tax mu jafe-jafe bu wàññi ko woon fekkoon da ko jënde junni ginnaaw bi mu daanu bay jar juróom ñetti téeméer jàpp mooy dana ko xaymaa junni bu koy jaay bu ko bu koy génne asaka boobu daanu woon moo tax liñ santaane mooy li nga koy jaayee tey ci jabi yi loolu nga war a xayma booleeg xaalis bi nga am ak bor yi nga ameel te seen waxtu fay ko jot nga génn boole ko génne asaka génn ci bor yi nga xam ne yaa ko ameel nit bu fekkee li nga ameel nit ñi boo ko ci génnee la ci des du man ne saab asaka moom boru ay daal nit ci moom bu dee ab jaaykat di la ko jaay su waxtu asaka jotee day xool li mu yor ci xaalis xayma njaay mépp ci njëg gi mu koy jaayee tey noppi ak bor yi ñu ko ameel te waxtu fay ko jot te xam na ne ñu ko ko amee danañ ko fay dañoo ñëw bu rewee danañ ñëw bu dajalee loolu lépp génn ca moom ñi mu amee li bor la ci des mooy mooy mooy alal ji su ma tey nisaab mu génne ko yow lu gën a gàtt ci génne asaka nag mooy alal ji nga diviser ko 40 lu mu la jox mooy mooy asaka bu xasee man nisaab nisaab nag fi mu ne na 3 millions yi C'est tegal dara incha euh, kii moom day laaj mu ne lan mooy àtteb koo xam ne sikki daf koy faral di gaar lu bari su dee julli du xam ndax ñaata rakka la julli wala bu dee jàpp sikki toj na wala tojul ak yu mel noonu waaw sikki da koy gaar lu bari de dañ leen dañ koy wax ne ko li ñuy sikk sàkk bu ko faale maanaam saa buy sikk sàkk ñett la wala ñeent na jàpp ne ñeent la buy sikk sàkk benn la ñaar day jàpp ñaar la waaye nag su jullee ba sëlmal na sujjóot ba'da salaam ngir toroxale ko seetaan ki nga xam ne nag sikk nekkut jàngoro ci moom maanaam léeg-léeg la koy gaar kooku dañuy wax ne saa buy sikk sàkk jàpp li gën a néew buy nattale ñaar la wala ñett ñaar lay jàpp amaa kii nga xam ne nag mustan kex lañ koy tuddee mooy da koo da koo dëkkee nga xam ne bu set dana ko dal donte benn yoon la kooku daa wéradi bu sikki sàkkaate bu mu jàpp lim si na jàpp lim bu gën a bari te bu jullee ba sëlmal sujjóot ba'da salaam kii moom day laaj mu ne lan mooy charte mu kàllaf anam yan mooy daje ñu ne kii mu kàllaf la mu kàllaf na at am mu kàllaf euh, mu kàllaf sëñ na ñetti charte yoo xam ne mooy daje nit ki nekk mu kàllaf ñett benn bi mooy naan ak am sagoom am xelam nit bu wéradee wéradi xel yàlla tëggul ko jëf ñaareel bi na doon mag na àgg ci ab doon mag gone nekkul mu kàllaf ñetteel bi na yëg ne woote bi lislaam ak seen ne ñetti sàpp yi la la la mu mu kàllaf waa joo xam ne tey bu fekkoonte ne am na ci àdduna mi ngi ci xunt yoo xam ne mësta yëg ne lislaam am na kooku du mu kàlla kooku day mel ne ba tey ci fatar la bokk yëgut ne am na yonent bu yàlla yónni woon sallallahu alayhi wa xëy na loolu moom daanaka bëreetul bu amee it bëreetul waaye ñaari sàtt yi moom ngir nit nekk mu kàllaf day ànd akum xelam ku xas wéra di wéra di xel at yu mën am ci àdduna nekkul mu gone goo xam ne nag baaleexagut kooku du mu kàllaf buluux nag am na ay mandarga dañ koy xamee bu dee ci mësëb bi dañuy tudd juróom yoo xam dañuy wax ne ñett yi góor ak jigéen ko bokk mooy naq kawar yu mat na saa bu génnee xam ci nelaw wala ci ak yëg su boobaa mat na baaleex na amee fukki at ak juróom-ñett loolu mooy góor ak jigéen ñoo ci yem ak yeneen ñaari sàrt yoo xam ne ci jigéen lañ ko sàrt mooy bu gisee baax walla mu ëmb donte am na ñoo xam ne ëmb gi génn màndiyu moo koy jiitu mu dara waaye am dañoo xam ne ëmb ak ak gis baax mandarga la ci ne bu ko jigéen da dafee euh, léegi nekk na mu kàllaf am na it yu tudd ci ci ngër mi ne mandarga la ci ak mage góor su dee ba ay poqtaanam di am xet gone góor goo xam ne mesure gu ko ba am xet tàmbale am xet rek na xam ne bàyyi na kon bu demee kàddu gi diis dëgër nga xam ne nekkatul kàddu gone loolu bokk na ci yi ñuy xamee eh, mandarga ne moom nekk na mag léegi yooyu daal lenn la ci yi nga xam ne danañ ko xamee ci ci ci mazhab bi waaye charte yi moom ñett yooyu la benn bi daanaka mutu solo waaye ñaari mooy faw mu ànd akum xelam faw mu baalix ku ànd ku nekk baalix ci yi ñu wax nii te amu am xel nekk mu kala yi ñu santaane yépp waru ndax nekk mu kala waaye bu xasee nekk mu kàllafit euh, ci benn ci ñuy wax maanaam mu kàllaf gi mooy yi ñu tudd fukki at ak juróom-ñett day mel ni moo ci mujj maanaam bu saxee kawar yooyu ñu wax wala mu génn mànni wala bu dee jigéen mu gis mbërëg wala mu ëmb yooyu yëpp bu amul bu amee fukki at ak juróom-ñett baleex doon te gisul yeneen màndar kii moom day laaj mu ne koo xam ne dafa fekk imaam di julli suba nekk ci sujjóot bu mujj bi ci ràkk bu mujj bi mu ne ndax kon dagan na mu dem julli ci fajar ñaar ràkk ay fajar loolu julli suba ah, li ñu wax rek ginnaaw fekk na ràkk bi raw na ko ba noppi hmm. kon mën naa bañ a ànd ak imaam mu dem julli ñaar ay fajar loolu julli suba xam nga nag yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li mu santaane woon bu ngeen di julli ji na ngeen waaxu ci fulla waaye bu leen daw bu ngeen àggee lu ngeen fekke ngeen julli ko lu ñu leen rawee ngeen motti dañuy wax ne nit ki bu fekkee fu mu mën a fekk ilimaanam fu mu ko mën a fekk na kàbbar tàbb ci julli bu fekkee amul ci lu mat bu imaamam sëlmalee mu jóg julli kon foofu ñoom kenn ndax fekk nañu julli suñu ko bàyyi di def taxiyatu masjid wala muy def ñaar rakkay fajar waaye day dugg ci julli gi ànd ak imaamam donte amu ci rakkaa ndax am na si borom xaw ñu wax ne kàbbaru amal kep boko defé ci julli gi am nga neel ngir baye xel wax joju day tax na dugg ci julli gi don ci mësa bu japp na ne amul julli mbolo waye na dugg ci and ak iman bu mané mu jóg julli ju ndax dañuy wax né bo fekkon sax ñi julli farata bo ci walé na fi dang koy am fekk ñu taxawal fajar ñaari rakkay suba te julle bo ñaar fajar dang koy koy walé ci biir boo ko ci yéene waale am ko ca kon moom na na def noonu yéene waale ko ca nag di beru di julli ñaar ak ay fajar fekk ilimaanam sëlmalakut loolu du ndigal moom kii moom lay laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit bu góor mu jëfandikoo alalu magam ju jigéen wala rakkam ju jigéen joo xam ne day liggéeyee wàllu jokk kawar waaw ah, xam nga nit bu nekkee mbokkam moo xam ne day jëfandikoo lu dëgënu la jiitu ci lu ko war mooy al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar fekkee mbokkam moomu day jokk kawar jokk yàlla dafa rëbb ki koy def ak ki def lu ci lam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laana allahu waasilata mooy jigéen ji lett di jokk kawar jokkal nit ñi seeni kawar mustawsila mooy ki koy def lu ñëw joxe xaalisam ñu defal ko yàlla rëbb na ñëpp te rëbbum yàlla nag dañuy wax ne luñ ko wax rek bàkkaar bu mag la kon li ko waroon mooy tere ko waaye saa bu jëlee àll jum xam ne ci la ko jële loolu ma ngi koy encourage ci nekk kooku defut li ko war amma bu doon benn jàmbur boo xam ne moom sequñ dara mu dajeeg moom fenn mu yëkkati alalam jox ko ci loola kooku sañ na ko lekk waaye moom mii daa séq mbokk mi loo xam ne lekk alalam ci anam googu moo di ne li ngay def lu baax la loolu lay teg moo tax képp koo xam ne tey dangaa doon kilifa am kilifteef ci nit muy def lu bon bu ca jëlee alal julewut sañu ko lekk ndax sag lekk ko mooy ne ko li ngay def lu baax waaye bu daje woon ak jàmbur boo xam ne nag sequñ dara ci yooyu yëpp bu ko joxee sañ na ko lekk ndax dañuy wax ne alal du caa génne jëmmi alal di mooy araam alal nit ki ni mu ci jotee ci lay araam mbaa mu daga ndax alal moom ab junni ci misaal bu ñu ne woon junni bi dafa xaraam mooy niñ ko fàggoo moo xaraam waaye junni bi mu kenn du ko lakk kenn du ko gas suul dañ koy jariñoo léegi nag moom ñu ko fàggoo ci anam gu daganul moom sañu koo jariñoo ak njabootam sañu koo jariñoo ab sëriñam sañu koo jariñoo waaye bu demee ca daara ja wala ci jàkka ja wala moo dem ci dispensaire ba fekk ñu néew doole mu jox leen ko sañ nañ ko lekk ñoom kon yu mel noonu it loolu man ta ca bàyyi xel ki nga xam ne yow sa mbokk nga am lolu war ci mom digel ko bax ak tere safaan bu dee def ab safan di la ca may ngay lek mooy yang koy yang koy jappale ci safan te dimbalante ci bakkar rek bakkar la sëñ Cheikh ki mom day laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne dafa for ak kurus di ko jëfandikoo di ca wérdu ndax dina ca am tuyaaba ci wérdu gu muy wérdu ca kurus boobu la jot waaw bu ci yéenee ndax xam nga for la am ayat ci l'islam ci for lu am solo dañuy bëgg mu xamle ko ci bar biñ ko yaakaaree ci diir ñu wax bu diir yooyu jotee nag sañ na koo jariñoo sañ na koo saraxeel kooka sañ na ko saraxeel boppam waaye lu ci mën a xew day yéene saa yu borom feeñe mu fay kon moom bu ci day wér ànd ak yéene saa borom feeñee mu fay ko ko bu ko ko mayut su boobaa incha allah lam koy jëriñoo mën naa am njëriñ li bon daal mooy mu di ko nëbbu nga xam ne fas yéene borom ba ko gis waaw nag jëfandikoo alal jàmbur la te yàlla dee su ko topp ci loo xam ne ak mooy ko la jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne lan moo tax yenn wayjur yi di tere seeni doom yu góor ñuy takk yenn ci xeeti jigéen yi ne doo takk xeet sàngam mën ndax loolu lislaam moo ko jàngale euh, sëriñ seex lislaam de lim jàngale mooy bu nit dee wut soxna di góor nañ xool ci moom ñaar nañ xool diineem ak jikkoom su baaxee nañ ko may soxna bu dee jigéen gis na ci xool ñeent waaye ba ca am solo mooy diine ja danañ xool taar ba di xool alal ja di xool juddu ba waaye nee na diine ja ca am solo kon yooyu ci la lislaam teg ngir ànd diggante góor ak jigéen am na nag yoo xam ne ay aada la yu fi yàgg nag yenn yi lislaam fi la ko fekk xeex na ko ba sonn waaye daa mel ni jële ko fi jafe mooy nit ñi moom dañoo séddale seen bopp ci ay catégorie ci ay jamono ay ñuñ moom ak ñu nekk jàpp seen bopp ay sang ñoom la woon ci ay jamono ay ba léegi ay borom yi xaalis ak ñu new doole lañ ñenn ñu nekk dañuy xeebandi ci seen biir waaye du loolu du lislaam waaye nag ab sëyit nag bëgg nañ ñaar ñiy boole ak nawlonte am seen diggante nawlonte gi mooy ay jullit lañ nawlonte ci diine mooy seen seenu jëfandikoo diine bañ a soree maanaam nit koo xam ne diine da koo ñor ba dara ci ndigal yi ko xët ak koo xam ne maanaam buy jëfandikoo diine lugaar lay doon ñaar ñooñu war a su leen boole ci sëñ waaye bu dee ñoo xam ne ñoo bokk na bëgg diine lislaam foofu lay xool ak nawloon bu ko defee nag yi des moom ngir ab sëy mën a ànd mën a neex ñi ko séq kenn bañ caa xeeb morom di baax na ci am na loo xam ne bu ko lislaam terewutit boo ko defee ngir ne man lislaam tërëwuma ko da nga dem ba ci biir ngi séddoo ndax dañuy dem mu yàgg duñ mën a déggante xam nañ ne yonent yàlla muhammad alayhi salaam mayoon na mbokkam zeynab bintu jahsh radiyallahu anha zeyd ibnu xaarisa waaye daa mujj rek wax na ko ba tey am sika alayka zawjaka wattaqillah soxna si am lu mu gis ci zeydu lu mu ko jàppe ba sunu borom moom mu jox ndigal yonent islaam salaam ko na ko wàcc sant yonent islaam mu jël ko la ko bokk na ci lam woon taban nii ndax da koo jàppoon doom daan nañ koy ay jamono Zayd ibn Muhammad kon dafa mel ne aada yu dëgër la nag yoo xam ne du lislaam moo ko santaane waaye daal baax na ñaar ñi dencante ñu bañ a xeebante bañ a yebante ndax dana tax seenu sëy mën a déggoo ma naa am mën a yàlla ay bu xeebante wala yebante amee rek buñ doxee tuuti kenn ku ne tàmbalee gis sa bopp xëy na ñenn mag ñi yu mel noonu la ñu bàyyi xel du ne dafa xaraam wala dañ koo sit waaye ak déggoo ndax ñaar ñii boole ñu ne dañuy bëgg nu mu gën a mën a yàgg moo ci waaye léeg boole yoo xam ne xam nga ne mënta yàgg loolu it ba di wut njëriñ waaye nag du lislaam moo wax ne ay waaso sàngam waruñu leen njëriñ lislaam moom ay jullit la wax ay jullit yu am diine am jikko ñooñu lañuy ñu war a boole. waaw jërëjëf sëriñ kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci kuy wàññi ci tukki muy julli julli naa fi waaw dañoo sant ki wàññi muy naafila xëy na nag am na ko woyofal ndax mën naa naafila ci kaw daaba ji bu dee oto lu dugg mën naa naafila ci biir oto bi fu oto bi jëm mën naa jëm foofu loolu sax ci sunna euh, kon wàññil nañ aji tukki ji julli ñeenti rakkaa mu di ko julli ñaar waaye nag dàqut naafila yi yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ci ay tukkeem yang naafila waaye nag mën nañ koy fal naafila gi mën na ko def ci kaw daamar ji mu nekk bu fas la war bu dee oto dugg te it boobaa sartatuñ ci moom mu jublu xibla fu daamar ji jublu rek foofa lay jublu. kii moom day laaj mu ne koo xam ne dafa sangu càngaayal aju ndax dana wér mu mën caa julli ca càngaay loolu te du jàpp. bu ca jàppee njàpp moo xam ne farata la ci yéene mën na waaye bu dee sangu gi rek la càngaay loolu naafila la. te jàpp ngir julli ajuma farata la naafila mënta wuutu farata waaye farata moo mën a wuutu naafila bu doon cangaayal janaaba moom mën naa wuutu cangaayal ajuma wuutu njàpp waaye cangaayal ajuma rek sunna la kon bu ca bëggee julli ajuma da jàpp njàpp moo xam ne da ci euh, yéene laab su boobaa mën na caa julli insha allah kii moom day laaj mu ne lan mooy àttal jigéen joo xam ne boroom këram da sàkk mu bañ daal ne moom daal li ko fi bàyyi rek mooy ak njabootam waaye sayid moom bëggatu ci dara. waaw bu fekkee noonu la demee de def na lu ñaaw ndax yonent bi alayhi salaam wax na ne saabu boroom kër soxlaa soxnaa mu bañ guddi googa malaaka yi dañ koy fanaane rëbb kon bàkkaar bu rëy la soxna boroom këram soxla ko mu ngànt ci lu lu ngànt ci lu lu ngànt amma bu agge ci nañ ne ko ay doom ak bàyyi way tu sey bi gaddu ga muy akhe na ñaan baat sey ba tas mu gal ndax sey mën na tas fekkee deggo nañ mu dess mu dess ci kër ga di wuf ay doom fekkee may nañ ko waye ni ci sey bi te joxo sey bi akam lolu mën na andil jambe ay bu ëllëgee ndax yu reey la yo xam sunu mom da ko samulu bëgg bu ëllëgee it dana ko la jamm kon nek ak sa borom ko di gaddu ak ci mom loolu wóorul loolu kon bu ko mën tëwee rek mën na ñaan baat bu ko maye baatam bu tok mu tok ngir njabootam waye ngir baña ga daq waye fek mi ngi doon soxal mom na xamné war tey fi soxla la koy war suñ ko ko tëggilu ki mom day laaj mu ne lan moy atté ko xamné jinné wala walla rab la ko dugg ci xaram dal jamono ñuy jëg ba limuy julli xamul mune ne ndax kooku war naa sujjóot eh, wala déet li ñuy wax fofu mooy lu def ndax ndax ndax dugg gi ko jinné ji dugg da tax mu yok ci julli ji wala mu wàññi fofu la ñuy xool bu fekkee yokkut wàññi moom sujjóot waru bu yokkee ci julli gi rek da dana sujjóot bu ci wañé wàññee dana sujjóot amma bu démé ba taggo ak sagoom nga xamné xamatu fu nekk mom day jàpp ne kooku julli gi day yàqu digi bo an nit ki wante ko xelam julli ak ànd akum xel day tax ci la bokk ci sart yi la bokk bu ànd akum xelam bu dee nag diir su la ko def dellu si xelam dellu si te defu fi luy waral sujjóot ba'da salaam wala qabla salaam kon sujjóot waru ko. kii moom day laaj mu ne ndax dagal na ci koo xam ne ni day football bis yi nga xam ne da koy am ay match bu ñu koo woor liggéey bu dagan boo xam ne kenn wérantewu na dagan dëgënut nit ki di liggéey tax mu bañ a woor maanaam liggéey bu tegu ci yoon dañuy wax ni soo yoon di liggéey day woor su demee ba gis ne mënta wéy sañ naa doon doon bu mar àgg ci foo xam ne bu naanut ba wutul dana loolu day doon waaye du wax ne tey liggéey bi day metti su ma xëy du ma woor loolu sañu ci liggéey bu dagan boo xam ne kenn ren du football nag fii ma fii ndax ñi dagal dañuy wax ne bu ci am ko nekkul bu ci carte nekkul wuñ ñi awra nekku ci jaxaso goor jigéen nekku ci faat waxtu nekku ci suba dagal ñi ko daganal loolu la wax bu yépp dako kon loolu nekkul ngant luy tax nit ñi ne ko dagal ci koor bu ci dog koor ngir loolu da nga fay da nga kafara ndax day japp ne xoti war may dama dal amana bu ci nekkon bo muy tam mar dab woo xam bu neul loolu Kok sañ na dok korom ngir soyo ba kanam wa day fay bis ni ki nga xamne yeneen liggey yeb loolu lañ ci jere jop serign kii mom day laaj mu ne ndax dagan na ci ab su waré genn lu muy joto ci koor gi mu genn ko ci khalis ak ndax man na boole lepp rek mu genn na ko benn yoon su amone ay fan mu boole lepp genn ko benn yoon waaw dañuy wax ne lele de li ci waroom xam-xam yi wax mooy ñam lay doon moom day sul génne xiima ji lañ wax xanaa ku génne mudd mudd ngay génne la jëgga nit nag bis bu set nga génne waaye bu dajale woon juróom fan daal di génne loo juróom fan yi ba tey baax na ndax léeg sax mu am njariñ ndax génne loo ab lim jox ko nit mu amal ko njariñ léeg-léeg bu benn mudd boo ko joxee def na ko bañ njariñ lu am sax mu bàyyi ba weer wi dee mu dajale lépp nga xam ne bu bu dee fanweeri fan dana jege fukki kilo ak juróom-ñeent ci ceeb bu ko génnee day mat ba tegal tuuti su boobaa mën na ko génnee benn yoon joxe waaye li gën te gën nag mooy saa bu xëyee mu joxe saa bu xëyee mu joxe waaye bu bàyyee ba weeru jeex mu dajale ko joxe koy dara nekk waaye nag ñam la ñuy génn. Euh, kii moom day laaj mu ne lan mooy àtteeb koo xam ne du ab julit jël alalam di ko dépassé ci loo xam ne lu baax la lu mel ni ki jàkka. waaw xam nga jëfalan suñu jëfalanteeg ñi dutu jullit ci àdduna lislaam dañu koo daganal la yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min diyarikum an tabarruhum wa alxaan la mën nañoo jëfalante ñoom di wecc ko ay hadaaya yonente yàlla muhammad alayhi salaam yahood yi daan nañ ko jox ay hadiya muy nangu kon kuñ ci may sañ nañ koo jël bu ñu fekkee ñu ne ci procès bu lislaam jox mana? sañ nañ koo jël ma nak ñom buñ ci am tiyaaba ma tay bu yeufur fekkon ay julit ñi tabax jàkka mu joxe ci alalam danañ ko jël daf ko ci man nako ko jariñ ci àdduna ndax dana tax julit ñi maslaa ak moom bu di ab kat man na tax ñu jënd ci ay marchandise deeru jaayul dagan waye nak du ci am ji nga xane bu doon ab julit bu ko participer day melni ku tabax am joju mom du ci am waye nak man nako ko ci àdduna motax seen yu bax ñom man na la jëriñ ci àdduna waye du leen jëriñ xiyam ndax yomal xiyam de su ko jëriñoo te gëm am te gëm amul ki mom day laaj mu ne ndax dagal na ci abdulit mu jënd ci barab bo xamne ne dañ fay jaayé ay naan yu haram bitik bo xamne day jaayé lu dagan waye day jaayé la ay sàngara ak yoyu mu ne ndax mën na faa dugg moom jënd boisson dem yoonam. bu fekkee ne yeneen boutique am na yoo xam ne lu dagan rek lay jaay li jaadoo ci jullit moom mu dem foofu ndax loolu mooy li ko war bu fekkee nag benn butik boo fa am te lépp lay jaay te moom aajo woon a jënd sañ naa dem jënd la mu soxla lu dagan dem yoonam waaye nag la gënoon moom mu am yeneen boutique yoo xam ne ñoom jaayuñ loola boobaa na fa bàyyi kay rax lu baaxul lu baaxut ndax su jëndee ci moom mi ngi koy jàppale ci kanam. kon dem ci kii jaay lu dagan rek mu jënd ci waaye bu fa sësee nag bàkkaar du bàkkaar bàkkaaru jëmm dee su ko sëf keneen moom miy jaay lu xaraam mu am bàkkaar bi kon yow boo dikkee jënd fa lu lew la ca def sa yoon nekkut kii nee na moom dañ ko yónnee benn somm ci alal jaare ko ci jumtukaay yi ñuy yónnee xaalis waaye na xamul ki ko yónnee kan la tey mënut a jokkoo ak moom mu ne ko ndax mën na koo jëfandikoo yéene ca ne saa bu borom feeña mu delloo ko ko waaw day jàpp ne lu ñu for la rek mën naa am ku doon yónnee jaawale mën naa am sax ku waa ko jublu da ko bëgg a joxe te bëggul ko xam ne moo ko joxe waaye ginnaaw léeru ko moom bu gëstoo gëstu mënta am benn bunt bu xam fa mu jóge na ko jàppe lu mu for lu ñu for nag boo koy jëfandikoo bu la neexee nga saraxeel ko boroom bu neexee nga lekk ko ko jariñoo ko yéenee saa yu borom feeñee nga fay waaye loo xam ne nag xamoo boo xam boroom dana feeñam déet li gën a daal xel mooy nga saraxel ko ko moom nga xam mën a nekk tuyaaba ji moom lay dellu ndax boo ko lekkee yow yéene wala su borom feeñee nga fay ko su borom feeñul nag day mel ni àq la joo xam ne xamoo mën ngaa dem ba génn àdduna mu ñëw di mu door a feeñ kon ko ko mu ëpp mu gën a dal xel donte nag boroom xaw xam ne sañ nga ko lekk. yéene ci saa yu borom fay nga fay. Euh, kii moom day laaj mu ne ndax koo xam ne dafa am tawati asma ndax mën naa jëfandikoo pompe yi nga xam ne moom lañ koy jox ak ndax bu ko jëfandikoo dina am jeexit ci koor gi walla déet. waaw li boroom xam-xam wax de mooy pompe asma day yàq koor ndax gaz boobu dugg ci nit day dem ba ci biir day jeexital. ndax saxaara ko gën a woyof te saxaar day dog ko saxaaru cóolos cin saxaaru cigarette day yàq ko ñoom ci yooyu lañ ko boole waaye nit ki nag bu asma dafa wéradi dafa wéradi kon su ko kirisu asma dabee sañ naa jëfandikoo pompe bi dog kooram ñuy mel ne ku wéradi ba jóg ramadaan dem jox ko lekk wala jox ndox mu naan ngir faju su ëllëgee mu mu fay bu ma ne bu demoon nag asma bi àgg ci amul benn bis bu ko du daaneel nga xam ne moom bis bi set dana ko daaneel kooko day jàpp ne woor wàcc na daa wéere di wéere goo xam ne mënta ànd ak ko su boobaa moom dañuy sopp mu leele waaye fii léeg-léeg la koy daaneel su xëyee na woor su ko dabee mu dog su ko dëgg mu àggale kooram bis yi mu ko dab nag day dog kooram lekk lay des ci bis ba wéeru jeexee mu fay amu ci benn bakkaar nag ndax wéerati la waaye nag jërut forcé jërul forcé wax ne comme damay fay du ma pomp damay bàyyi ba dog jot rek ndax loolu it léeg-léeg lor sa bopp la te lislaam day tere nit di lor boppam ndax yàlla bi santaane nga woor moo la sant ba woppee nga fay kii moom day laaj mu ne ndax koo xam ne dafa am tawati jalis nga xam ne ba léeg-léeg day dem ñu xoolaat deret yi mu ne ndax ku woor mën na koo def ak bu ko wooree bu wooree def day war a fay wala déet. waaw loolu la borom xam-xam wax de nee nañ jëliis dara jooju moom luy dundalal yaram wi la aw ñam la wuñ defaat wuñ def ci biiram moo tax ku ku dafa xasil kalaw yi ci ci koor bëccëg Ramadan bis booba da koy dog su jàllee mu fay. jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne ndax dagal na ci góor su bëggee denc jigéen mu def listixaar ak nan la koy defee. waaw listixaara moom dañ koo santaane eh, Sayyiduna Jaabir ma wax ne radiyallahu anhu dañ ñu daan digal ñaanu listixaara nit ñu daan dañ ko daan jàngal nit ñu daan jàngale saari alxuraan nee na yonent islam moo ne ku ci amati mbir mu yitteel mu bëgg a dugg bala caa dugg na julli ñaar rakka yoo xam du farata bu na ko jàng ñaanu listixaara ñaan la koo xam ne lañ koy wax ma yow sama borom maa ngi ñaan nga dogalal ma lii may dugg bu gënee ci man nang ma ko yombalal te jàppandal ma su gënut ci man nang ma wëlbati te yombalal ma la gën ci man ñaan boobu lañ bëgg mu def ko balaa dugg yi mbir mu mën a doon loolu dañ ko santaat nit ci mën na ko defal boppam mën na ko def lu nit loolu moom ci sunna yi bay sàll bokk yim santaane woon saxaaba yi ne ñaan boobu dañ ko daan jàngal jàngalante niñ daan jàngalante bu saar alxuraan ma saawaj kon lu yitteel loolu la kii moom day laaj mu ne ndax julli ajuma mën nañ koo def ci usine boo xam ne léeg-léeg ñu déplacé wu ak yan mooy charti ajuma yi daje ñu mën a julli ajuma ci barab waaw bu dee ci barab moom ajuma dañuy sàpp na doon barab boo xam ne ña fa nekk dañ fa fas yéenee dëkk bépp barab boo xam ne ña nekk dañ fay nekk ak diir jóge fa comme màngaankat yi ak léeg-léeg ñi nga xam ne ñu def ay campagne dem ba ci àll bi te leen soldats yi di ko def def fa juróom benn weer def fa seeni camp foofa kenn du fa julli ndax yéene wuñ fa dëkk bi ci des it nit na doon dëkk boo xam ne mat na ab dëkk nga xam ne doon xew dëkk ba ñoom danañ mën a jóg jàmmar ak waaye ñetti nit ñeenti nit bu dajale woon dëkk ci as ndëkk ñooñu duñ fa tabax juma kon bu fekkee nag ne usine bi ay dëkkukaay la dëkkukaay la boo xam ne li ñu wax daje na ci nit ñu fa nekk dañ faa fas yéene sax te lim yi mat na mën nañ faa defar jumaa di fa julli am naa nag muy tuxu tuxu loolu leeru man ndax jumaa moom day nekk benn barab ñu tabax dañuy wax ne dañuy tere jumaa mu yées li nit ñi dëkkee maanaam moom xëy na li li nga koy wut la jàkka bu dee jàkka lu ne mën nga koo defar bu nekk jàkka waaye bu dee jumaa dañ lay wax ne la li nit ñi dëkkee bu nga ko yées maanaam bu fekkonte ne waaye dëkk bi ay tabax lañ dëkkee mën wut mbaarum seng ne mooy jumaa ji faaw jumaa ji mbaar tabax lay doon kon kon bu fekkee lu mel noonu la nga xam ne dëppoo naag li ñu wax te ña fa nekk sax fa mbooloo mate ko mën nañu julli ajuma kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci jullit bu jigéen mu def li ñuy tuddee pose ay xef ak yu deme noonu ak ndax yooyu bu ko defee su jàppee njàpp ma dina wér aussi ay xef daganul ndax jokk kawar ci biir jokk kawar la ko war a waxu dugal te yàlla ci làmmiñu islam rëbboon na ñi nga xam ne dañuy jokk kawar ak ñu koy jokkul ndax kawar guñ ci luñ ci yokk la bi ci des it baaxut ci wér gu nit yi docteur yi saxal xam leen nañu baaxut dana am ay wéradi ci wàllu bët yu muy def yoo xam ne bu ko nit ki baree lu muy def mën naa jékki-jékki mu yàq bëtam kon baaxut bu ci sit bu fekkee nag ne boo ko defee dana tax xef yi dëgg du tooy su bu jàppee jàpp mbaaxu ndax bu fekkee luy gaar àllankoor xef yi ba moom mooy tooy waaye xef yi nga xam ne moom la yàlla bindoon du tooy soo jàppee su boobaa njàpp matut te bu njàpp matut boo julli julli ko du baax yooyu yëpp nag bu dajee lu fi jar gàddu ay xef man gisu baaxut ci bët lislaam da koy tere mën naa tax boo jaamu yàlla jaamu yàlla du baax loolu na jàpp naa ne bëgg ab taar jarut fekkee ne ab ngi ji fekkee ne ab taara ngi ji kii moom day laaj mu ne lan mooy àttab imaam joo xam ne léeg-léeg bu dee jiitee day miir mu ne ndax su boobaa mën naa ñobbi kenn mu wuutu ko wala mën naa toog continue julli waaw ci mësab bi de nit bu amee ngànt ci biir julli ngànte ñaar la ngànt luy tax du mën a wéyal julli gi da koy dagg dem ni ki mu doon julli bu yàgg njàppam toj wala muy bori di génne deret sobe la day génn dem wutal kenn bu dee ngànt loo xam ne nag julli gi yàquwut waaye jiite la mën a tudd ci noonu mu wax bu dee miir ba mënta taxaw ci mazhab bi ku mënta taxaw du jiite kuy taxaw souvent day dellu ginnaaw dem ci sàppe ya xëcc kenn koo ko dem àggal julli moom la ci si mu àggalee ko toog ndax loolu la man du yàqu julleem keneen ne ñëw àggale julleem fekke mir la wala yeneen wéradi go xam dal munu ko bolé def ponk yi ba mat kon mom julli du yakku waye nak do dootu jité lan moy àtte ko xamné dafa lek wala mu nan yaakar ne jant bi sona wala budé ci suba gi la muy lek di nan japp né heure japp jotagut xam nga da bok ci sunnay koor bu jant bi sona ginnaaw bu mu la wóoree na jant bi sox nit buy sikki sàkk sëñ ta dog buy sikki sàkka dog rek sa kodd yàqu nit dañoo sopp yeex xëdd waaye njëkk fajar bi jot tax yooyu moom nit wóor koy def ba noppi di sikki sàkk saa bu sikki sàkkaa ginnaaw ba nag mu am yaqiin ci ne moom kat lam dafoon nekk di baaxut kon day fay am na mu demee sax day fay kafaara ndax moo ko tey day jàpp moo ko tey kon li gëna bu gën dal ab julit bala nga dog na la leer ne jant bi son na la leer ne waxtu ñu dog jot na nga dog bu yàkkamti mukk gis mu lëndëm rek nga ne xeyna xeyna xëy na japp boo nak na la woor ne boo gisee ñuy bayyi sax ay nangam minute ngir bañ loolu amata fi ne bu ñu wax japp jot na dana fekk léeg sax mu dess dara waye nak loolu moy tax nit ñi baña ag ci nak di jëf jëfandiku ci waxtu woo xam day fekk japp jot loolu yu ma bayyi xel nak jaamu yalla la te jaamu gi nag ni ko yàlla santaane noonu lañ ko war a defee ab jur waru ko fay waru ko kafe waru ci jëmee nag ay nattable lekk sikki sàkk ndax diine ci yàqin lañ koy tabax dee su ko tabax ci sikki sàkk euh, kii moom day laaj mu ne yan weer moom la taamu ngir takk ci ab sëy ak ndax am na ay weer yoo xam ne dañ naan weer yi kat taamu wuñ ko ci denc wala ko ci takk ab sëy ci charia islami moom weer wu ñu wax ne dañuy tere ku ca takk ab sëy man xaw ma jàpp ma am weer yëpp weer yàlla bis yëpp bis am na nag yoo xam ne mën nañoo seetlu mag ñi ko doon tere am na xikma masal ramadan mag ñi bari dañuy tere takk ci ab sëy man li ma jàpp ne moo ko waral takk ab sëy ci ramadan daa wóoru gone bu góor bu am ab seet ba ci Ramadan ñoom ñaar bu ñu fi nekkee seen koor mën naa yàqu kafaara mën na leen war ñooñu bàyyi bu yi ñu door leen a fasal moo gën a wóor damaa jàpp mag ñi yooyu dañ doon bàyyi xel waaye tekki wut ne sariya moo tere sariya moo tere takk ab sëy ci Ramadan wala ci weer sànq waaye Ramadan ak baraxlu dañoo jege ndax baraxlu du fekk weeru weeru weeru weeru asal bi jeexal ko yooyu yëpp bu amee nit ki koor mën naa yàqu ci ci yu ndaw jàpp naa ne mag ñi yooyu taxuñu di ko tere waaye tere terewuñ ko ngir ne charia moo wax ne buñ ko def. jërëjëf sëriñ kii moom day laaj mu ne lan moo tax lislaam xaraamal ñuy lekk yàpp mbaam. ndax yonent yàlla Muhammad moo ne xaraam na ndax rijs la min amali sheytaan da xaybar la ko xaraamal ba mu ko waxee cin yañ taaloon di togg dañ koo këpp kenn lekk yàpp mbaam yonent yàlla Muhammad moo wax ne xaraam nañ. mbaam kër gi dafa xaraam mbaam xuux dafa xaraam mbaam mi dagan mel na mbaam moo dagan ci mbaam yi muy mbaam àll mbaam mbokk yi li nekk Sénégal gii dama xam fi ay gaa yu koy mbaam xuux mu ci àll bi la ngara ngara mbaam xuux la ba demee ci Mauritanie lañ koy tudde borom xoox yëpp nañ cee mbaam xuux la lekk ko mbaam àll mooy li am lu mel ni ay rëdd loolu moom gëw ma ne bu amee Sénégal yi bari na fi loolu moo dagan ci mbaam yi waaye mbaam sëf yi mbaam xuux yi ne ci kër yi mbaam xuux yi ne ci àll ñu koy tudde ngara ku leen lekk lekk nga man ko mata bàyyi xel lu bokk eh, kii moom day laaj mu ne koo xam ne dafa bëgg naafila ràkka yu bari wala daal lim bu baree bari ci ay naafila mu ne ndax bu yéenee benn yéene rek mën naa yóbbaale lépp wala day def ñaar rakka yu muy julli yu nekk mu beral ko yéenam waaw xam nga tarawih dañ koo jàppe daanaka genn jaamu yàlla nit ki mën naa yéene jénn yéene waaye nag du teye sopp nañ ak saa bu sëlmale yeesal yéene comme niñ ko xamee ci koor bu ramadaan dañ koy jokkale sañ naa yéene jénn yéene ngir weer boobul ngànt jénn yi da ko yóbbu waaye teewut sopp nañ guddi gu jot mu yéesal yéene kon moom bu ko jàppee genn jaamu yéene ko jënd yéene suuf sës sësale leen baax na waaye su sëlmalee ñaar rakkaay yu ne yees talaat yéeneem bañu dara aw yiw la ci aw yiw euh, kii moom day laaj mu ne dafa am lu ñuy tuddee coro jinne muy laaj ba xam ndax loolu lu am dëgg-dëgg la wala déet ak jullit bi ban taxawaay la war a am ci loolu xam nga yooyu moom ci lënt yi la bokk doonte borom xam-xam nee ñu jinne ak nit danañu jëflante ci àdduna ab sëy sax nee ñu dana dox seen diggante waaye doom mënu ca am ndax bokkuñ tabiya loolu la mu xàq ko ni wax am maa wax ne daa am faru rab lislaam bu sukkandiku ci loolu ndax boobaa jigéen mën naa dem fee taxawaalu ba noppi ñëw ni faru rab yu mel noonu sukkandiku ci mel moom ci zahir la ñuy àtte zahir la ñuy ko àtte waaye daal teewut borom xëy di wax ne jëflante moom ci diggante nit ak jinne dana di am di jàppalante ci ay mbir ndax jinne yi am na ci ay jom ay jullit ñu gëm am na ci it ñu sàggan nag ñoo xam ne ñooy def jaaxu bi waaye nag dañuy wax ne doom moom mënut am seen diggante moo tax ku ko woote it duñ ko jàpp kii moom day laaj mu ne lan mooy àttab ku fàtte benn farata ci faratay julli yi ak kooku fàtte lan moo koy war waaw benn farata farata julli fekkee sëlma la gudd rakka ba farata ja lay bàyyi yokk benn rakka bu doon ab sujjóot la wala ab rukkoo bu sëlmalee nag toog lu yàgg julli ko day yàqu kooku day jóg julliwaat julli ko ndax farata moom dee su ko jangee ay sujjóot sujjóot sujjóot yi ñuy wax sunna lay jang waaye du jang farata kon ku bàyyi farata boo sëlmalagut wala ngay door a sëlmal mën ngaa jóg yéwénal ko da ngay bàyyi rakka booba indi benn rakka boo noppee sujjóot ba'da salaam bu yàggee nag julli ko day yàqu kii moom nee na dama seetlu ne imaam bi bu dee julli suba ci rakka bu mujj bi su jàngee fatiha jàngalam cay teg day am diir bu muy noppi nee na muy laaj ba xam noppi googu lu ko waral ak diir boobu imaam bi noppi maamum bi moom lu muy def ki topp ci ginnaaw waaw noppi googu bu ci masab Malik lu ñu sopp la ndax dañ ci jàng xunóol ci masab Malik julli suba yépp ginnaaw rakkab ñaareel bi ginnaaw fatiha ku saar njëkkuru ko wala sax ginnaaw du koo léeg-léeg jàng ñaanu xunu ñaan googu nag ilimaan ak maamoom ñëpp lañ bëgg ñu jàng kon kenn ku jil dana ko jàng bu dee ilimaan da koy yelu waaye su waaye it maamoom yi dañoo déglu mu jàng fàtteeku saar bu tàmbalee yelu nag ñoom it nañ yelu jàng xunut xunut boobu nag luñ sopp la bu ko defutoon nag du yàqu dara ci julli gi te du ko sujjóotale nag waaye su ko fàttee woon ba rukkoo bu siggee man na koo jàng dooru na koo jàng dooru sujjóot waaye nag bu ko fàtte woon ba sëlmali du wàññi dara du yàqu dara kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci koo xam ne day liggéey ci benn station nee na am ku ñëw yor benn bon boo xam daal fukki litre moo ci war a nekk nee na waa ji na ko jox ma juróomi litre ci gasoil wala essence juróomi litre yi ci des nga jox ma ko ci xaalis waaye nag waa ji liggéey nag day am benn pourcentage bu mu cay am su su ko joxee juróomi litre yow ci xaalis muy laaj ba xam ndax loolu dina dagan wala déet. waaw moom de bu fekkee ne jaay gaasuwaal lañ koy def loo waaye ji indil ko ab bon boo xam ne gaasuwaal la ci ne mel ne moom jaay gaasuwaal moo ko war waaye day mel ne foofu daa jënd gaasuwaal ndax bu dee fukki liitar mu jaaye ko juróom yi yeneen juróom yi mu ne ko jox ma ko xaalis kon day mel ne lu mu waroon a jaay la mu jënd ko moom. bu fekkee am na ci ndigalul këyilif barab ba de nga xam ne moom moo moo bëgg a jënd loolu baax na am maa lam cee jëlee nu muy tudd xaw ma ko nu muy tudd ndax bu fekkee ne da ko koy neexale ngir mu nongul ko ko ngir ak boo liggéey loolu ger la dëgganut bu fekkee ne it day doon loo xam ne moom dañ ko faa teg di ko jaayloo gasoil jaayut gasoil bi xanaa bàyyi fa gasoil ba lekk ci xaalis ma ngay tooñ boroom kër gi koy liggéeyloo yëpp wéelant la amaa nag bu fekkoon borom borom liggéeyukaay moo ko may loolu xamal ko ne ku andi bon man nga koo jënd ndax ba day mel ne rek borom boo bi daa jaay gaasuwaal bi xëy na bu ko jaayee nag jaayee ko njëg gu yées giñ ko baaxoo jaayee comme moom moom gaasuwaalam bu ko neexee jaayee ko yées loolu ay na leer ne moom ki pompe moom jaayee lañ ko def la waaye kenn néew ko jëndal gaasuwaal kon bu jëndee gaasuwaal ci lu ndigal kilifaam dama jàpp loolu du dugg bi nak nag mu am ci xaalis bo xamne dañ ko don jaayal gasoil bi jaayu ko ba pare récupérer ci xaalis loolu leerul ci ci man jàpp na ne du lu dagal euh, kii moom day laaj mu ne lan moy atte ku wor nelaw laata waxtu yu dok di jot ñan yalla dogal nak mu sarale di nelaw ba xëyaat ci bëccëg bi door a yeewu mu ne ndax kon bu yewoo day dok wala day continuer koor gi ah bu fekkee ne ami um fason na yéen war weer wi yow ya day woor bu dogee ci lu ngànt na fay kafa nelaw yoyu mu jadu do nelaw ba saral loolu jadu xana xanaa fam nekkee néew fa mais bu fa nekke sax jadu wut nit ni diko baye bàyyi muy nelaw di saral loolu wor waaw mom tiya bu ju bare bare xam na ko boppam bare bare ndax dañoo bëgg jambi su woré wor du ngant mbokk yi ba lu baax li nga doon def nga di ko bàyyi wala nga di ko wàññi da ko yokk nit ki boo waree daa war a am énergie bu mag ci ruuxaaniya buy tax mu gën a mën a def lu baax ay wuru ko wàññi ngir koor waaye jàpp ne boo war da ngay nelaw moom guddi bëccëg bépp dañ bu ñuy dog dañ lay yee kooku ñu wax ne wóorul de ci sariya waaye nag yiw bi ñuy séenu ci koor moom du ca bari la du bari hmm. Hmm. kii moom day laaj mu ne ndax dagal na ci jigéen mu ziyaare ay armeel jigéen saari armeel day wax yu bare jàmm waaye li ci gën a lëng mooy dañ koy tere donte nag xadis bi ci rot daa wax ne laanallahu zawaraatil qubur yàlla rëbb na ñiy ziyaare ay bàmmeel zawaraat nag dañuy wax ne siixatu mubaalaxa la maanaam ñi fay dem lu bari ñooñu dañuy wax ne bu fekkee bariwut lu mu fay dem nga xam ne xëy na léeg la te buy dem dana yor melokaan bu ñu sant ak jullit bu mel ne suba mën naa dem armeel loolu jafe la bi ci des it euh, li ñu yóbbu ci armeel dëgg-dëgg dafa yóbbu nit indi sam daa waxoon ne tere woon naa leen ko léegi de leen ko def ndax day fàttali bàmmeel bu fekkee day fàttali alaxira bu fekkee nit ki bu fa demee daal fàttali ko léeg-léeg jigéen dem ci armeel yóbbaale ko ay jooy yoo xam ne bu génn day tàggu sa ko ñooñu waruñoo dem ci armeel koo xam ne melokaan wa ci ni mu toll solee wala la mu takk bu dee ñooñu waaye bu sàtt yi dajee nag nga xam ne melokaan bi ab jullit bu jigéen war a mel suy génn mel na ni te it bëriwut lu mu koy def xëy na su boobaa bi ñi wax ne zawaaraat ma foo moom mooy kon bu dee ay zairaat te bëriwut loolu mën nañ ko doon waaye daal euh, lor nekkul ñàkk def ci moom maanaam ñàkk dem ci armeel yi jigéen lor nekku ci ndax bu dee ku faatu lu mën na koo ñaanal fa mu nekk lu mu ko ñaanal ci wax dana ci jot bu ma nee matal sàtt yi nag léeg lekk mën na fay dem su boobaa waaye nag na xam ne bañ faa dem moo gën ndax ay risques yu ci dem bi te ñàkk faa dem amul lool fii moom day laaj mu ne lan mooy àtteeb ki toog ci diggante ñaari rakkaay yi toogaay bu gàtt waaye ni na loolu tëyu ko daal waaw toog bi bu fekkee ak dal amu ci dara nekku ci ndax daa am ci ngir yi ñuy wax ne jalsatul istiraha day am ci diggante rakkaay yooyu nga xam ne ñoom bu ñu jógee ci rakkaab bu njëkk dañuy toog tuuti dóoru jóg bu ñu jógee ci rakkaab ñetteel noonu waaye ki ko def te amul ak dal nag tarawul ci ndax doole duñ ko tudd doole waaye bu dal amoon nag ak doole lay doon day sujjóot ki mu ne lan moy atteb jigen jo xamne ne dafa nek ak borom këram waye mbir yu ndaw ndaw dal day tax mu mer gaddu e bagage mu dem kër yaayam kooka dama japp ne dañ ko wajjal lu tuba bi sey ak sey mbokk yi mag ñi dañ ko doon jàng di ci tàggat ndaw li di ko ci waajal bu mu doonee xale dañuy tàmm mooy tax bu demee kër xam ne ci mas ron mas uuree la nekk xam ne jaamu yàlla la dafay dafay dafay liggéeyal si yàlla day fàggu ak njaboot day day day day day day day day sàmm suma aw ay bokkam waaye yooyu yëpp nag bu fekkee nit dafa màgg judd bu màgg kenn jàngalu ko yépp mu nekk kër baayam lu mu bëgg ñu defal ko ko saa yu meree ñu neexal ko kooku bu sëy it day jàpp ne loolu deme moo tax doom ju jigéen dañ koy yar ginnaaw xam nga ne li ngay ñaan yàlla mooy mu tàggoo yo dem sëy fexeel bu fu mu dem du dellu si bu demee delsi dama delsi sikki sa ci yow la ndax yaa ya, sa doom yaa ko jagalu te nit nag melu nen kullu mawludin yuladu ala alfitra nit melu nen ak mana a baax lay judduwaale eh. loolu ñu salaam wax fa abawahu yuhawidani aw yu aw yu mel ay wajurum wa ma maa ñi taxaw taw ñoo ko ci def kon man nañ ko yar ba bu demee kër du delsi bokk na ci li ñu tagge jigéen ni diw fay bu mbokk musuñu fay musuñu fay mom mu dem ci kër ñaari baat ñett mu fay dem kooku jëgut kon dañu wara yar doomi ba nga xam bu demé ci kër ndax loolu ab xexal ab ab ab jaar la jihad la jihad la bëgg wax ab sey jihad la da ngay liggéeyal yalla ci sa bër sa kër borom kër muy metti di tang di dëgër ngay muñ ngir bo liggéey nga am dara am yiw am aljanna waaye kuy def bu tangé mu daw mom do am dara loolu nak dañ ci tàggat nit ki yar ko ci ba tax faw ñu yar jigéen ñi ñu xam dañoo war a sëy ne ci kër di sëy waaye daf leen ay ay ay ay ay ay prince ay princesse euh, doo leen defloo dara te buñ demee kër mënuñ dara ku leen tudd nga bëgg a mer fekk yaa def lépp loolu lu ma ta bàyyi xel mbokk yi kii mu ne moom ndax dagan na ci jullit ñi ñu dajaloo ci lu mel ni Europe ci benn barab ngir def ay ndogu mu ne waaye barab ba dafa am màndarga muy wane mu nguur jigéen waaw xam naa bu dee ay jullit daal yu dayee ci barab di dimbalante ngir yàlla loolu dara nekku ci ndax màndarga yooyu moom nit ñu bari ñu ngi koy wax naan màndarga yi góor jigéen la waaye ñëpp ci nit ñi dañ koy romb dem seen yoon du ci nekk lu mu doon xëy na mën naa am ñu koy def nag am na luñ ci jublu waaye li am solo mooy yow miy def ak lii la tax di def bu fekkee daal mën nañoo am barab boo xam ne sikk sàkk amu ci lenn luñ fay sikk néew fu moo gën waaye su mënta am nag barab boo xam ne ñoom dañ fay def lu baax di defar ay ndogu julli ñi diko lek ngir yalla luñ fa taf lo xamne dañ ne mandargal nangam te ñom seen yoon néew ja wor leen ko yakal ñom ñako gëm nañ nañ ca nek di am lu bon yow ngay dox ay ndogu di am lu bax da amna na ci barab yo xamne ay dañu ko yomb fo te momo ko yit nak yili fo foo ko barab yi ñu may ñepp lañ ko may kenn ko dafa indi sam jaay kon yow lang fa mom fexe ba jëfëndiko ko lang fa sañ ci anam gu dagan rek ay ci des sa yoon bañ caa nek Hmm. laaj bi ñuy mujjee day laaj ne lan moo tax yenn jàkka yi su koor gi ñëwee bu ñuy naafile day fees waaye bu ñu dee julli waxtu juróom yi ñaari nit ñi du ko tax a bari lool. loolu moom bokk na ci li jaaxal ñëpp jaam ñu bari jaam ñu bari bu ramadaan dikkee dañuy bàyyi xel yàlla bu ramadaan jeexee ñu fàtte yàlla dañuy fonk jàkk di julli waxtu juróom julli ci ajjuma di naafila di jang alquran di jang qasida waye fuñ né tafer ñu laf yëpp loolu de loolu bokku na ci màndargam amo qabul dañuy wax ne bokku na ci màndargay koor gi nangul nañ la ko yu bax yi ci tammi won bi ramadan jeexee nga wëyel waye bo tamé yu bax ci ramadan mu jeex nga sann yëpp xamalé ne sa koor kenn nanguwul wala man na moytu tayit nak waxuñ ne na ngay wëy ci même ki bi waye nak waxtu juróom tàmmoon nga ko ci koor fexeel boo yël ko julli jëfewut te foo nekk jàkkaa ngi sawet bu julli nga dem julli fa julli mbooloo gënee na julli kenn ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar booy dem ak dikk jéegu yi dañ la koy bindal ay tuyaaba yiw bu noonu ak julli ko xañ boppam waaye bu ramadaan dikkee nga baax lool bu ramadaan jeexee nag nga dellu fa nga newoon loolu nit ki koy def day mel ni moom yokkuwut te nit bu yokkuwut day wàññi moo tax ab lël la war a doon ci nit nga fi yokkoo yiñ fi jële ciy baax bu jàllee bu mënti tëy yëpp tëy ci yu bari bu benn ramadaan ñëwee nga tëy waa di bari bu yàggee rek kenn du la gën a loolu lañ soxla ci am jullit jërëjëf sëriñ bi kon day mel ne loolu mooy laaj yi fi xanaa ñu bàyyi nga tàggoo rek ñu door a tëj ok jërëjëf sëriñ sax xanaa di dal di muy mbokk yi di leen ziara bi ñaan suñu borom dafa ñu dégg ak topp di wax ne la yent bir la rek ay julit buñ bokké dañu war di yent bir kenn ku ne la biré morom ma pet gam ko tané mu diko ci dimbulé ci waxtu yépp jamono yépp bëb bi waaye rawatina ci ramadan kon jataay xam-xam yi am solo la nit ñi diko téwé ak di top ak di ci jariñ waye di ci jariñe tax ba mu yaatu ndax bari waana ci nit ñoo xam lañuy def ci ab safan ñak xam mo leen ci duggal sa buñ xamee noonu dañ ko bayyi yalla yalla dafa ndimbal tawfiq may ñu jàmm dimbale ñu ba lim digg ci weer ñu man ko waaye lim ci digg lépp yàlla na ko yàlla defal ci barke sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bi ci tontu yu leer yi nga xam ne indi na ko ci laaj yi nga xam ne ñu ngi ko doon gaaral moom ñu ngi ñaan suñu borom gën koo dëgëral gën koo kattanal ñu di ko sant ci turu daayira Muqaddamatul Xidma di sant mboolem ñi nga xam ne ñu ngi teewoon ci jumaa ji di topp waxtaan wi. ak ñi nga xam ne ñu ngi doon topp waxtaan wi ci bitti jumaa ji kon suba incha allah.